journal bi tamit laaj na ay expert maanaam ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu football ki njëkk a wax nag nee na démb de équipe national bu Sénégal première mi-temps bi tane woon na waaye deuxième mi bi kenn xàmmewut leen te ñi nga xam ne ñooy milieu de terrain ci Angleterre dañoo tëj suñu latéral yi Youssouf Sabali ak Ismail su mënuñoo yéeg jàppale attaque bi comme ni ñu ko bëggee loolu bokk na ci li nasaxal équipe national bu Sénégal Aliou Cissé mi leen di tàggatit mi ngi wax nee nag dañoo gis noppi Angleterre boo xam ne dafa ñëw li mu amoon lépp mu def ko ci match bi te équipe bu mag la ñu am démb ndax Harry Kane ma nga fa woon ànd ak gone yi ñoom Saka Foden ak ñoom Bellingham ak ñeneen ñi ñëpp te Sénégal nag bu ñu xoolee Idrissa Gana Gueye nekk fa woon ñanco Sadio maane tamit ñëwul ca coupe di monde ba te Cheikhou Kouyaté tamit bokkul ca match boobee kon nag équipe national bu Angleterre moo gënoon noppi équipe national bu Sénégal Aliou Cissé moo yëkkati kàddu yooyu journal bi tamit ñëw na ci génne gi nga xam ne génne indi nañu ko Elimane Ndiaye ñu bëri nag ñoo koy kaas waaye Elimane Ndiaye bi ñu miitaawee dafa am ab gaañu gaañu bu ndaw loolu moo tax bi ñu dellu waatee bokkul ci ñu dellu si ci terrain bi stade yéenekaay nee na lool moo tax ñu remplacer Elimane Ndiaye Edouard Mendy tamit mi ngi wax ci journal bi nee na nag démb Angleterre daf ñu ëpp doole mën ñu lool am ndam suñu kaw waaye défaite bi nañu ko fàtte te waajal qualification coupe d'Afrique bi ba noppi fexe dem ca coupe d'Afrique boobee am ca ndam ndax démb Angleterre daf ñu ëpp doole lool Edouard Mendy di góolu ca Chelsea moo xamle kàddu yooyu. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay gayndey Angleterre yi di démb ñoo gënoon foor gayndey équipe nationale yu Sénégal yi démb nag dañu ko wane bi ñuy jàkkaarloo doxantu ci kaw. Sénégal am ndam dem ca quart de finale ya Aliou Cissé mi tàgget équipe nationale it mi ngi wax nee na démb nag Angleterre moo ëppoon doole équipe national bu Sénégal te équipe national bi nag li ñu gën a rey moo di ñaareelu bit bi ñu jël laata ñuy miita loolu moo gën a rey équipe national bu Sénégal Aliou Cissé moo xamle kàddu yooyu ñancoo Sadio maane tamit bi match bi jeexee yónni na bataaxal gone yi bataaxal boobe bokk na ci def leen njukkal ba noppi ne leen nag defet bi mitti na lool waaye nañu ko fàtte man léegi mu wér ñëw ñu àndaat xeexi wuti yeneen coupe ngir équipe national bu Sénégal kon defet bi nañu ko fàtte ñancoo Sadio Mané moo xamle kàddu yooyu capitaine bi di Kalidou Koulibaly tamit moo ngi wax ci surnal bi nee na nag bég nañu lool ci yoon wi ñu jaar maanaam parcours bi nga xam ne équipe nationale bu Sénégal def na ko ndax ñun waa Sénégal yaafu sunu benn yoon ci coupe du monde bi fii la yem nag naam bëggoon nañu ko weesu waaye lii la yàlla dogal Kalidou Koulibaly moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Kylian Mbappé ak Olivier Giroud la journal bi fësal ca wu njëkk wa mbappe nag démb moo xitali waa France ndax demb moo boot équipe nationale bu France. ànd ak ñoom ñu am ndam ci kaw Pologne bu Robert Lewandowski bit ba njëkk a am ca match boobee dugalu ko waaye moo ko jox Olivier Giroud mu dugal ko waaye ba mu ca noppee yeneen ñaar la dugal match ba jeexee trois 1 kon France dem na ca quart de finale ya xam na ki muy jàkkaar lool Angleterre mi dóor Sénégal démb moom la France di jàkkaar lool ca quart de finale ya jamono ji nag waa France noppi nañu loolu la journal bi xam le waaye Olivier Giroud nag bitam boobee mu dugal moom it dugal na ko ci taarix ndax Thierry Henry moo nekkoon meilleur buteur ca équipe nationale bu France cinquante et un bii la amoon Olivier Giroud dab na ko waaye démb da koo romb jamono jii Olivier Giroud 52 buts la am ak équipe nationale bu France kon mooy fa meilleur buteur farandoo Kylian Mbappé bi ca Paris tamit mi ngi ci journal bi muy Neymar Junior ñoom nag tey jii bu trois heures jotee Corée du Sud la ñuy jàkkaar lool waaye Neymar noppi na ngir bokk ca match boobee xam ngeen ne dafa amoon blessure waaye blessure boobee kat wér na li ko waral nag moo di dañoo baral paj mi naam jàppoon nañu ne dina wér bu ñu yeggee ci huitième de yi waaye wér ba départ titulaire moom bett na leen lool te tey jii noppi na départ titulaire ca match boobee ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Harry Kane la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa yees weekend mën ngeen ko def lan jàkkaarloo ak France dem ci demi-finale ya ndax quart de finale yi France la Angleterre di jàkkaarlool moo tax journal bi nee na leen mën ngeen ko def Harry Kane mi mu fësal ci xët wu njëkk wi nag démb dugal na bi Sénégal di jàkkaarloo ak Angleterre waaye bit boobee mu dugal mooy bitam bu njëkk ci coupe du bi yemu àndal ci équipe nationale bu Angleterre moo di sunu jàkkaarloo ak France match boobu guerre la te li ñu bëgg moo di xeex am ndam ca match boobee nee na nag jamono ji li mu bëgg moo di dab Wayne Rooney jamono ji nag ca équipe nationale bu Angleterre Wayne am na 53 bit moom Harry kenn mu am cinquante 52 bit te nee na nag attaquant la te attaquant kat buy football dafa bëgg di dugal ay bit rawatina moom moom nee na saa su duggee ci terrain li mu bëgg moo di dugal ay bit ndax loolu da koy bégloo bu ñuy jàkkaarloo ak France nag li mu bëgg moo di doxal ca match boobee am ca ay bit ba noppi battre recordu Wayne Rooney Henry Kane moo yëkkati kàddu yooyu Raheem esterling nag démb gisu leen ko mu football bi ñu leen di jox onze officiel bi sax ñoo ngi leen doon wax ne du bokk ca match boobee li ko waraloon nag moo di njabootam ñoo nekkoon ci jafe-jafe ndax ay bandi ñoo leen songoon ba noppi jël seen alal loolu moo taxoon mu jóge ca katar dem ca Angleterre ngir taxawu njaboot ga muy Raheem Sterling kon nag bu ñuy jàkkaarloo ak France wóoragut ba léegi mu bokk ca match boobee am déet ndax loolu la bëgg lijjanti ba noppi door a fekk équipe nationale bu Angleterre muy Raheem Sterling hmm. jugee Londres Angleterre wutali Pays-Bas fekk fa Esport werel de waa Pays-Bas la fësal wu njëkk wa ginnaaw États-Unis nag léegi Messi ngeen di jàkkaarlool loolu la leen journal bi xamal match boobu ajjuma la bu trois heures jotee journal bi nee na leen niveau bi nag faaw ngeen gën ko aj naam bi ngeen di jàkkaarloo ak états niveau bi aju woon na waaye yokku leen ko Vangal mi tàggat pays ba tamit ma ngay liggéey ci Lionel Messi jamono ji nag ndëgg sërëx la ko bëgg a lalal maanaam nu muy def ba tëj Messi ba du dox ca match boobee ñu war a jàkkaarloo journal bii di sport weral de moo xamle kàddu yooyu ñu jugee pays ba wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa marka yéenekaay Kylian Mbappé la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa meilleur buteur bi de lancé na waa France loolu la journal bi xamle jamono ji ca coupe du ba Kylian Mbappé mooy fa meilleur buteur ndax am na cinq bit waaye ci histoire coupe du monde moo ëpp ay bit Cristiano Ronaldo moo ëpp ay bit tamit Diego Armando Maradona kon Kylian Mbappé mi ngi doxal te mi ngi wane boppam ci coupe di monde bi waaye journal bi nee na jamono jii nag France xam nañu ku ñuy jàkkaar lool ca quart de finale ya Angleterre la France war a jàkkaar lool France li ñu bëgg nag moo di dem ca demi-finale ya waaye match boobu du yomb Asraf Hakimi tamit moo ngi ci journal bi moom nag ca Maroc lay football nee na nag li ñu bëgg moo di bettaat àdduna gépp comme ni ñu leen bettee woon def jaloore ñoom kat poule ba ñu nekkoon ñoo fa jël pie ay ponkal nag la ñu ko bokkoon nag ndax Belgique fa la nekkoon Croatie fa la nekkoon Belgique sax ñibbi na waaye Maroc moo jëloon pee ca poule boobee li ñu bëgg nag moo di bettaat àdduna gépp am ndam ci kaw Espagne Espagne googee sax dirigeant wu Maroc yi ñoo ngi leen di artu ne leen def leen très attention ci sunu équipe bi ndax ñun waa Maroc équipe bu mag la ñu am kon waajal leen nu te bàyyi ñu xel dirigeant wu Maroc yi ñoo xamal loolu waa Espagne ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay morota la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa dàqu ma nag ñu dem ba tir au but bu ñuy jàkkaarloo ak Maroc kàddu yooyu du samay kàddu kàddu Alvaro Morata la ñoom suba la ñuy jàkkaarloo ak Maroc match boobee nag nee na ñoo ngi koy waajal te jamono jii nag xeebu ñu benn équipe ndax li leen dal seen diggante ak sapon su fekkoon match boo xam ne la dañ lay dóor nga toog kon ba léegi ñoo ngi jooy loolu nag war nañu ko moytu bu baax te jëmbat ful la bu ñuy jàkkaarloo ak Maroc ñoom waa Espagne. kàddu yooyu Morata moo ko yëkkati waaye journal bi tamit laaj na ko ci Diego Simeone mi nga xam ne moo koy tàggat foofee nee na Diego Simeone nag mi ngi may bàyyi xel te mi ngi may yónnee ay bataaxal di ma nemmeeku naan ma góor góorgóorlul gëm ko rek dina baax Kylian bappe tamit moo ngi ci journal bi jamono ji nag mooy buur foofee ca Qatar ndax ba ngay doxal ca coupe di monde ba ndax am na juróomi but ca coupe di monde ba kon mooy meilleur buteur muy Kylian Mbappé Olivier Giroud tamit mu ngi ci journal bi moom nag démb dugal na waaye tax na mu romb Thierry Henry ndax jamono ji équipe nationale bu France Olivier Giroud mooy ka fa dàq dugal ndax am na juróom fukki bit ak ñaar Thierry Henry juróom fukk ak benn la am muy cinquante et un ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fekk fa esport capacolik Barcelone gi di Pedri le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Pedri nag li mu wax tey jii dina neex Malick Sarr ndax Pedri nee na dafa bëgg final coupe di monde bi jàkkaarloo ca ak arsantine nee na loolu de mi ngi koy yaakaar te su amee dina neex lool final bi nag le 18 décembre bii ñu nekk la waaye nee na bu ñu yeggee ca final ba ma jàkkaarloo ak Messi match bi jeex ñu soppi ay mayo man ak moom loolee dina ma neex lool Pedri moo xamle kàddu yooyu club ba muy football di Barcelone ki leen di tàggat di Xavi tey jii lay dooraat entraînement yi ngir waajal bu ñu dooraatee championnat yi rek mu doxal. juge jugee esport jël Mundo Deportivo en Fati la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa nee na équipe nationale bu Espagne nag jamono ji noppi nañu ndax dañu leen branché te ña ngay doxal équipe bi léegi dañoo manko déggoo bokk ndey ak baay kon li ñu bëgg moo di jël coupe du monde ba waaye moom nag mi ngi wax nee nationale boobu nag baax la pour nga ñëw fi di football li la koy may moo di la ju mat sëkk ak liggéey bu rëy te moom noppi na su ko Luis Enrique wóoloo dugal ko ci terrain noppi na ngir doxal Ansu Fati moo yëkkati kàddu yooyu waaye nag nee na bett na ma lool ma ñëw ci coupe du monde bi football fi ay match yu néew ndax xam ngeen ne bi mu ñëwee ci coupe du monde ba ak tey jii li mu football bariwul naam keroog bi ñu jàkkaarloo ak Japon dugal nañu ko ca match boobee waaye amul temps de jeu ca coupe du monde ba wax na tamit ci club ba mu nekk di Barcelone Barcelone nee na li mu bëgg moo di ca Barcelone googe mu bokk ci ñi fa ëpp njëriñ loolu la bëgg moom Ansu Fati waaye temps de jeu ba mu fa amit bett na ko ndax moom jàppoon na ne dina football ay minutes yu gën a bëri yi muy football jamono ji ca club boobee di Barcelone Ansu Fati moo xamle kàddu yooyu. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Kylian Mbappé la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag tey français la lakk le roi Kylian loolu la journal bi nag mooy buur ca Qatar waaye buur la tamit ca équipe nationale bu France loolu la journal bi xamle démb nag moom moo tax ñii di waa Pologne seen bëgg-bëgg ba sottiwul ndax match bi ñu doon jàkkaarloo démb doxal na ca bit ba ca njëkk am moo ko dugal waaye dafa doublé ca match boobee kon Kylian Mbappé jamono jii moo boot waa France ngir ñu dem ca quart de finale ya quart de finale yooyee sax France xam na ki mu cay jàkkaar muy Angleterre bu Harry Kane boobu samedi bi jamono ji nag wér na te nekk na à cent pour cent tey jii bu réewam di Brésil di jàkkaarloo ak Corée du Sud noppi na ngir bokk ca match boobe kon ku namoon Neymar dina ko gis tey jii bu quinze heures jotee. ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Olivier Giroud ak Kylian Mbappé la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Olivier Giroud nag ci AC Milan lay football moo tax bi wax ci moom Olivier Giroud jamono jii ma ngay doxal ca équipe nationale bu France ndax meilleur buteuru France moom mii la Thierry Henry moo ko yoroon am cinquante et un waaye jamono jii Olivier Giroud jël na ko ci moom am cinquante deux but kon Olivier Giroud ma ngay doxal ca coupe du monde ba farandoowam bii di Kylian Mbappé it mi ngi def coupe du monde bu baax ndax jamono jii nag ca Qatar googee mooy fa buur waaye kiliyan Mbappé li jaaxal ñëpp moo di daw yi muy daw maanaam vitesse yi nga xam ne daf koy daw ndax bu ñu xayma